ba pare dem def réallocation boobu feneen et ils ont raison par rapport au subvention parce que en réalité subvention yi ñu ñu koy defee dafa xoolul xaaj ak seen ñi ko soxla ak ñi ko soxlawul yëpp ñu lañ koy jox du coup c'est lourd pour audit yi corps de contrôle yaa ngi def seen liggéey am na loo xamante ne fekk nañu ko fii ci ay rapport ñu doon wax ne dañ ko teg ci conc man aw mu conc bi may teg ci benn rapport rapport yi ma fekk ñu pare génn nañ rapport yi ñu nekk di def génn nañ à la cinquième année rapport yi nga xamante ne ñi fi nekk di gérer te ma te ma tàbb leen ñoo fay ñoo fay ñoo fay nekk seen rapport tamit day génn bu rapport génnee nag ñi def rapport ñi def mission bi yenn saa ñu ne dañuy demande ouverture enquête judiciaire procureur lañ koy jox bu boobaa procureur dina def liggéeyam parce que bu dee man rek kenn enfreindrul benn yoon liggéeyu liggéeyu àttekat yi mais nag na nit ñi li nga xamante ne mënuma nekk ci logique boobu man duma duma kuy fayantu man bu ngeen demee xool samay émission yu yàgg lépp luy en ak mer ak fajjal faj sa mer man nekkuma ci lool man li ma metti ñu tooñ ma ko man ma moom ko man loolu dama ko baale parce que dama sant yàlla ci fi mu ma jaarlu donc toppañ ci kenn ci leen maintenant nit noo ko bëgg a bëgg topp tamit foog nga am loo ko toppe man mënuma ne nit ñi liñ fi doon defee yoon jaaru jaaduwul ba ma woote pour ñu xoolaat yoon lu muy doxee ba pare may gaawantu di fayantu pour satisfaire ay nit ñoo xamante ne dañoo mer mais de la même façon aussi man couvriruma kenn ñi ma fi fekk ñu ñu gérer ba pare ak ñi ak ñi ma nekkal kon que ce soit pour audit yi que ce soit pour leneen li euh, la rationalisation train de vie de l'État institution yi man amul lenn loo xamante ne def am naa ci changement pour ce qui est des fonds